niki samedi ji le di ñaar fukki fan ci weeru octobre suñ diggante magal semaine cote des ji jafe-jafe yu reuy judd ci walum transport ci digënté Touba ak mbacké niki samedi ji le ñi nga xamna ñu yëng ci walum transport ci digënté Touba ak mbacké transport bi xey galankoru ñi nga xamna ñu yëng ci walum transport amalo grève jakkalo ak ñi nga xamna ne ñoo di tak der yi jëmono ji nekk ci nekk ci askan wi rek am jafe-jafe ngir rek dem amali sam xey ñi nga xamna di kilifay transport yi ñi ni joxañ baramu tuuma moo di le takk der yi nga xam jëmono bu nekk rek ñi gën di dogalé ci kaw tali bi nga nga problème yi nga xamee ne si moom la nit ñi safoor si dund fii mu nekk nii dafa met safoor amatul baat amatul gëdd amatul lenn lu su koy respecté autorité respecté wuñ safoor daal jàpp dóor mënoote jël xaalisam rek lañ ci xam door jàpp mënoote jël xaalisam lañ ci xam. lii moom ñu wax yàlla rek xam nañ ñu bàyyi nañu may jàmm ñoom ñu bëgg a rey ñun buñ taxawee jumaa yi Tuubaa ñu jàpp ñu teg ci naa dañ ko war a dañ ko war a bàyyi ñu yéeg ci naa yi fu ñu taxaw ñu jàpp ñu bu ñu taxawee ñu jàpp ñu ñoom ñu bëgg bu ñu jaaree ci olom ko auto transport mu auto auto auto urbain amul emukaay auto urbain fépp la wër-wër mais ñun boo ñu jaaree ci olom ko sax ñu jàpp ñu fay loolu ñu 6000 francs tegul ci yoon loolu tegul ci yoon oto RB amul fenn fu mu war a yem jamukaay amu fa ñi ki jafe-jafe yi di wéy nag ci wàllum transport bi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum jakarta ñoom it am jafe-jafe ci li nga xamante moo di grève bi nga xamante ni tey ji rek moom lañu xëy nemmeeku ci diggante Mbàkke ji dafa gàllankooru ñun doomi dëkk bi leen sàccun fi nun tuxuñ jaayuñ yamba dañuy liggéey daan si dool yóbbu suñu kër ñi nga fi gis ñëpp ay père de famille ay xale yu ndaw yëkkati 350 mille mille def ko sa jakarta pour daan sa doole kenn nit ñëw bëgg la kaa jugewuñ sa àll ba jugewuñ fenn ñun si dëkk fi leen dëkk fi leen juddoo fi leen yoroo fi leen màggee nekk ay boroomi kër ñi gis ñëpp ay boroomi kër lañ di daan suñu doole ah kenn nit jugee sa àll ba ñëbu ñu ko xañ te mu si dëkk bi fan la ko teg fan la ko teg ñun dañoo sonn dañoo sonn amuñ lenn ñu lu jëkkataa parce que ñoo yoroon suñu liggéey koo si gis dafa yor liggéeyam mais xëy na la mu waroon a am sa liggéeyam amul ko moo tax mu bàyyi liggéeyam ñëw jël jëkkataa si daan dooleem même mi di wax yow commerçant la maa ngi sama keneen ak keneen noonu ñu ñëw di liggéey fii kenn ni ñëw ba ñu kaa xañ quoi dañoo sonn trop muy Soumaré moom rek moo ñu sonal biir Mbacke wóor na Serigne Touba. non non mënuñoo liggéey mënuñoo liggéey nu ñu liggéeyee nu ñu liggéeyee gis nga ko même ñun oto yi ñëpp la boole yemale fi ñu toll yi si kenn nit benn doomu adama bu ñëw xañ ñun suñu jàmm ñun bëkki dem ñun fii taxaw ñu ne ñu leen dootu am jàmm moom mooy kan mooy kan ah ban ñu leen du ngeen am jàmm mooy kan ah, moom mooy kan maa du ngeen am jàmm

ñun daal wax dëgg yàlla li mu metti na bisub sëñ Touba bi ñëw ñu nekk fi xeex ci garage bi moom la mën a ñàkk la police yi ne nañ dimbali nit ñi te may leen jàmm waaye grenade moom baaxul ndax day nit ñun ci suba ba lay ñu ngi fi bi yëf yi tàmbale ba tey ñu toog fi amuñu taxi bu ñu yóbbu amuñu lu ñu yóbbu kenn dawut kenn demut kenn dikkut metti na nañ bàyyi mbir lépp ngir sëñ Touba màggal gi moom ñëw na nañ ba lépp ngir sëñ Touba te xam ne sëñ moom moom moom moom ñëpp moom moom Touba Touba ñun ñu wàcc ci oto bi rek ñu police yi doon ñu grenade ba ñenn ña ñaanaloo dañoo daan di xam ca ca biir bi biir kay defal bopp ñu ngi bëgg a dee wàcc nañ bay bëgg dee ñu ngi ni xam ñu nu ñuy def. jafe-jafe yi nag di wéyandi ci diggante yi nga xam ne rek ñoo di takk der yi la ak transporteurs yi Touba. suñu diggante ak màggal nag une semaine courte des ci jafe-jafe yi di wéyandi ci wàllum transport ci diggante Touba ak Mbacké.